asalaamualeykum ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu capitaine Seyid Cheikh Ahmed Tijane Sy di ñaan yàlla sàmmal ñu ko di ñaan yàlla taxawul ñu ko di jël suñu nuyoo ak suñu ziyaara ci suñu góor gu tedd gi di ko teg ci loxoom di nuyu bu baax a baax mbokk yi nga xam ni ñoom la bokkal mission bi mbokk boppam Serigne Babacar Sy sama yaay soxna Fatima ak soxna Xajja jërëjëf soxna Fatima xëy na oustaz dañ koy laaj rek xasiida bi bi ko suñu maam di bind ci ban contexte la ko bindee ak en général nan nga ñu ko mën a résumer lee ba ñu mën ko jariñoo waaw xam naa ci sa biir question da nga ci indi baat bu am solo te mooy baatu contexte bokk na ci li tax mbindu sëriñ Babacar si radiallahu anhu neexula firi ndax sëriñ Babacar ay xasaayidam dafa ëpp poésie kese kese ndax ci xaal yi ma koy fekk la te xasida bi bi mu koy bind moom sëriñ Babacar radiallahu taala anhu fekk na ko mu dugg xalwa boo xam ni moom sëriñ Babacar xalwa bi def na mille cent nga xam ni indi na ko ci mbindam ci digganteem ak sëriñ Moussa Niang sakatna an kalaamin baada aynin wa milna lil kara mithla sukara tawallada aynaana bustaana faasin li xidmatina allati shaat jihaara mu nekk ci xalwa bi ñetti at yoo xam ni di wut sayid Cheikh Ahmed Tijani ñetti at yoo xam ni wax nañ ko fi léegi biddiw tiimu ci boppam benn yoon te li ci jant tiim boppam mën nañ ko compter sayid Cheikh Ahmed Tijani al Shariful Fatimi radiyallahu anhu di ko won li mu koy wan sëriñ Babacar di ko wëy ba ci la bindee halmin sabilin halmin sabilin nag nekk xasida boo xam ni dafa am lu mu tegtale ndax xam nga seen maam Sayid Cheikh Ahmed Tijane si radiallahu taala anhu moo waxoon sëriñ Babacar si radiallahu anhu ni lahu qalamun yaxkiihi xaalan wa mishyatan waaye wa fi chicri imma shaada bi chicri xassaanu sëriñ cheikh dafa waxoon radiallahu taala anhu ni sëriñ babacar si nee na boo demee ba koy jàng nee na mën nga ko jàng à travers sa plume waaye hal min sabili nag daf ci am exception boppam ndax daf di xasida boo xam ni dafa jàngale ñett ci sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu dafa jàngale sa dimension intellectuelle ndax qualité texte bi dafa jàngale sa dimension poétique ci ku xam luy xasal waaye dafa jàngale sa dimension spirituelle ndax façon bi mu woowee na Cheikh ku na Cheikh nàmpalul mënoo ko woowee noonu waaye dañuy faral di wax nag ci mbind ni jug rekk ñu xam fa nga jëm bokkul ci mën a woy te dangay gis kuy tudd nitu àdduna boo koy tudd naan son excellence son éminence grade bu ne nga tappal ko ko waxantuma laag nag kon kuy tudd ku toll ni xutbul maktuum barzaxul barazix taajul aarifin il faut nga am foo jaar moo tax sëriñ Babacar si radiallahu anhu commencé xazal xazal ba nag mu jëfandikoo ci lu ñoo wax almahbubatul xayaaliya jël personnage bu ñuy tuddee Salma moom sëriñ Babacar ni mënta bañ a fekki Salma mu ni ndax ñett a ko dal bu njëkk bi mooy muaddabul qalbi min lad'i sababati bal naarul lbiaadi ala al ahshaai takwini sëriñ Babacar si radiallahu dafa wax ni nee na cofeel gi ma am ci Salma mu ni cofeel gi dafa mujj transformé wu safara mu ni di takk sama xol mu ni sori gi ma sori Salma yi sëriñ Babacar nee na dafa mujj transformé wu safara nee na di ma lakk mu ni bi ci desit wal xubbu kam yudhilu l aqla salima kama bintu thamanina bal ahla wa yashfi mu ni ni ngay gisee nit mu ni bu jëlee sàngara mu ni ni muy tàqalikook sagoom mu ni mantam sama cofeel ci salma mu ni dem na ba tàqalim ak sama sago mu ni kon nag maa ngi feebar tawatu cofeel mu ni tawatu cofeel googu nag len na ko mën a faj mooy jug fekki salma moo tax hal min sabilin ila salma bi yabrini tawqu irtixaali ilayha kaana yabrini waaye koo gis mu sopp nag ca biir la mu sopp am na ñu ko ci découragé sëriñ Babacar nag ni mu soppee salma ak jug gi muy jug di fekki salma ña ko cay découragé sëriñ Babacar wax leen ñett ذرني أيا عاذلي بالحق مسترحا عداك حاليا فكنت الحى إلى حيني أبطأت يا لائمي نصيحة ولقد صحفتها بعد إلحاح وتخمين تئني المتيم في عهد القديم ولا في العهد القديم قلنك فلا تلم بمثلي في أحوال تحنيني خمج العهد القديم bari na koo xam ni bu la koy firil di la wax kóllëre wala al ahdul qadim am ñu lay wax jamono te sëriñ Babacar li mu jublu ci al ahdul mooy yawma alastu bi rabbikum yawma alastu bi rabbikum ruux yépp ni bala sëriñ Babacar si radiallahu anhu nee na fa la ma yàlla mosale mu ni cofeelu salma mu ni koo xam ni nag yawma alastu bi rabbikum mu ni laa ko sopp mu ni ñu ñëw ba fii mu ni nga bëgg ma ci découragé Serigne Babacar nee na je suis désolé waaye da yéex waaye comme sopp nag sopp ku jara sopp da caa baax Serigne Babacar nag ni la maa xubbu salma wa layla mayatin thumma suda wa suada wa xubbi gayra maknuni Serigne Babacar nee na maa ngi la wax salma nee na yaa ngi jàpp Salma nee na waaye Salma taxumaa jóg mu ni ndax li ma bëgg mu ni xam naa ni Salma amu ko kon nag sarrif inaanaka an Salma wa shaaratiha laa tatmain li dawaati dalli wal iini wa ush ila xaytu man tara al uhudu bihi kadaka mithaaquna bi lutfi wal liini sëriñ Babacar radiallahu anhu nee xam naa ni su ma demee yabriin nee na la ma bëgg duma ko am nee na moo tax ma changé direction nee na bàyyi yoonu yabrin jël yoonu Fass ñu ni ko nag boo demee Fass Serigne Babacar kan nga fay fekk ki la taxoon a jug mu ni bàyyi leen ma jox leen juróom-ñetti indice ngeen xool ba xam indice bu njëkk bi mu ni ki ma tax a jug wa huwa mahattu rijalil waafidiina wa man wa man uulul xawaaiji min ufqin wa min biini sëriñ Babacar si radiallahu anhu nee na ki ma tax a jug nee na mooy ki nga xam ni góor yàlla yépp mooy seen wàcc mooy seen wàccuwaay nee na ki ma tax a jugit mooy ki nga xam ni ñi am yittey àdduna yépp mooy seen wàccuwaay ndax moo mën ci yàlla moo mën ci àdduna mooy indice bu njëkk bi beneen indice bi ki la tax a jóg mooy kan mu ni baytul wilaayati misbaaxu dalaami wa miftaaxul kunuusi wa xadmul kulli lil xiini sëriñ Babacar si radiallahu anhu nee na ki ma tax a jóg mooy ki nga xam ni bu fekkoon wilaaya dafa am néeg bu ko yàlla denc ci moom moom mooy néeg ba kum ci mosalul doo am mu ni kii ma tax a jugit mooy ki nga xam ni ku nekk ci lëndëmu réer nee na boo ñëwee ci moom dinga ko fekk muy làmp njub mu ni kii ma tax a jugit mooy ki nga xam ni trésor yi yàlla di denc yi muy jox awliyaa u yépp caabi ji ci yàlla la ko ci loxoom la ko yàlla teg mu ni mooy ki nga xam ni ku mottaliwul li doo mat ndax mooy boroom borom xatmiya indice bu ñetteel bi mu ni chamsul maarifi taajul aarifina wa man yaxwi alfadaila najlu taha yaasini mu ne xam-xam yi nga xam ni moom la ñuy tuddee maarifa ki may wax mooy ki nga xam ni mooy jant bi kum ci niitalul nga lëndëm mu ni ñi géeju ci maarifa yi ñu leen di tuddee aarifin nee na ki nga xam ni moom lay wax nee na mooy ki nga xam ni moo leen coiffé nee na mooy ki nga xam ni yàlla jox na ko moo mboolem ngëneel yi muy joxe ba noppi mu di doomu yonent bi ñetti yoon sharaf tiini sharaf ilmi sharaf koo koy kan mu ni jëlal beneen indice mooy xalifatul xayri wal muxtaari min mudarin sirru sarirati sultaanu salaatini nee na mooy ki nga xam ni mooy xalifa ci maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ni mooy secret mbooleem secret yi ki nga xam ni ñi nga xam ni àgg nañ ci seen jamono ci may ba jamono ya ñu ba ñu doon dund ñu tuddeel leen sultaanul awliya sëriñ Babacar nee na ñooñu ñu tuddee sultaanul awliya yépp boo leen dajale koo koy seen sultaan koo koy kan mu ni raisu ahlil huda beneen indice wal barru farraqahum cheikhul machaayixi fil islaami wa diini mu ni mooy ki nga xam ni nee na ñi jub ñépp nee na bi ñu leen dajalee nee na moom lañ tànn ci seen biir def ko muy seen président mu ni ndax yàllaa ko teqaleek ñoom nag def ko mu di cheikhul machaayixi sëriñu sëriñ si fil islaami ci ci diine fil islaami ci ci sharia wa diini wala ci xaqiqa kookoy kan mu ni abul abbas abul fayd alladi baharat ayaatuhu kulla aqlin daaka yuxnu daaka yuxni nii sëriñ babacar nee na mooy ki nga xam ni nee na buñ koy dakkantal nee na wax ni mooy abul abbas nee na mooy ki nga xam ni fuyudaat yi nga xam ni mooy bale ci alxadratul ilaahiya yàlla di ko teg ci loxo maamam mu di ci nàndal yonent yi ginnaaw bu yonent yi nandee naan naanee ba noppi ku ci amati moo la nàndal ñu ne ko koy kan mu ni xutbul wujudi alladi abda wilayatahu rabbi wa aadamu bayna almaai wa tiini mu ni ki nga xam ni fi maa fi yàlla joxe maamam nubuwaam te boobu aadam bayna almaai wa tiini nee na fa la ko yàlla joxe wilaayaam te boobu it aadam bayna almaai wa tiini kookooy kan mu ni jëlal beneen indice wal xawsu wal barzaxul maktuumu aaliya aqtaabil ilaahi bila raybin wa tamyiini mu ni ki nga xam ni boo doon wut ku la xettali mu ni boo ñëwee ci moom di nga ko fekk mu di xettal bu ko mat waaye mu indi ci al barzax seen maam cheikh moo ñu ko firil radiallahu taala anhu nee na nit balañ lay tuddee barzax nee na ñu dem ba yàlla dootul nangu ku la tëb ñëw ci moom directement ku bëgg a dem il foog mu jaar ci ba noppi mu ni kii ma lay wax nag boo ñëwee ci moom di nga fekk mu di barzax mu ni waaye boo ñëwee di ko fekk mu di maktuum yaani maqaamuhu lmaktuumu an kulli lwara siwa nabiyina maa waraahu wara mu ni ki nga xam ni daaliya aqta bil ilaahi bila raybin wa tamyiini ki nga xam ni mboolem aqtaab yi yàlla am bi ñu leen dajalee kookoo leen kawe ñu ni ko xanaa am na tur mu ni cheikhi tijaani alladi shaa tariqatuhu bayna albariyati burhaanu lbarahiini mu ni ki nga xam ni yàlla defal na ko ñeent ci njabootam humul kiraamu wa asxaabu rasuli wa arbaabu lqabuli wa ahlu daafi wan nuuni mu ni ki nga xam ni yàlla teral ay njabootam te dootu leen teddatil mu ni ki nga xam ni it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jël ay njabootam njabootoo leen ndax moo ni ko woon asxaabuka asxaabi mu ni ki may wax it mooy arbaabul qabuuli nee na yàllaa ko defal ay njabootam qabuul it ki ñu ko jàngal mooy seen maam sayid Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu nee na ndax dafa dem Paris nee na di passé euh, permis de conduire moom Serigne Cheikh nee na bi muy dem di def examen nee na gis ni am na ñaari te yu mu def ba normalement daf ko wanoon repassé waat waaye Serigne Cheikh nee bi ma yegsee nee na tubaab bi xool ma ree génne permis bi jox ma nee na ni ma je t'en fais cadeau Serigne Cheikh nee na loolooy xabul waaye sëriñ Babacar yi nee na njabootu Seydina Cheikh yàllaa leen defal qabul ndax yàllaa leen dugal ci rabbana laa tuaaxidna in nasina aw axtana mu ni ba tey mooy ñi nga xam ni nag ahlu diafi bu ñu defee benn yàlla fay leen fukk te sëriñ Babacar nee na wan nuuni giñ naa ko ci noonu wal qalam ñu ni ko kon nag yow mi doon wax li joxel sa adresse mu ni inna alqasidata haadi min muridi abil faydil ilaahi abi bakrin axil hawni mu ni ki wax lii mooy ki nga xam ni mboolem grade yi ci àdduna bi yépp benn ma ci dàqal mooy ñu wax ma ni man maay taalibe sayid cheikh ahmad tijani sharif ndax muridul qarmi cheikhi laa yudaamu yanaalu bihi bi gaayati maa yuraamu fa baydatuhu tubaacu axi bi alfin fa maa lil farxi fi baycin kalaamu ida kaana alkarimu yajuudu fadlan qul fa kayfa yuqaasu bilfadli almaqaamu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin macha allah euh, Cheikh Sarr macha allah li mu indi am na solo ñi ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla dollil ko leeru dënn